passe di gën a parce que euh, mu ñuy interpellé ñun suñu génération ci lan mo wara a nekk ci suñu taxaway ginaaw biñu jangaté euh, liggéey bu mag bu ëpp solo bi nga xamné ne ne euh, mag ñi maam Abdou Aziz Sy malik def nako donc na jox kàddu gi suñu mbokk mi mom mu ngi intervenir depuis États-Unis abdul Aziz Bass pour mu dugg ci waxtan bi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 di sant yàlla bu baax tabaarakallahu ba mu ñu mayee ñu ñëw fas yéene indi tuti ci lu ñu xam ci dundu Cheikh laj Hadj Abdoul Aziz radiallahu taala anhu ci bëss bi nga xam ne mu ngi yemoo ak 11 septembre tabaarakallahu ñu koy fatali ko muy nekk en prélude ci bés biñ ko war war a fàttaliku génnuk addunaam le 14 septembre waaye tabarakallahu balaa loolu rek comme ni ko modérateur waxee alxaji iliman kan ñoo ngi tudd abdul aziz bas nekk mbokku taalibi fii ci états-unis tabarakallahu xam naa rek dañuy sant yàlla ndax duñu mën a tàmbali إيه، تبارك الله إيه، وقتان بي والكونفرنس إيه، بي ولا ويبينار بي سان بور اوتون نيو دولي دلو نيوكل اك دي سانت سونيي ويجور ييغا خامني تبارك الله نيوم نيو نيوم لا يالا ماي ني دوند اك شيخ الحاج عبد العزيز خم تي موم با ام تي موم تبارك الله أه cofel ak def ko référence ba jël seeni njaboot ñooñ ci seeni njaboot tudde leen góor gu tedd kooku te alhamdulilah yàlla baaxee ñu ñun ñu bokk si ñooñu euh, tabarakallahu loolu dañ koy sant suñuy wayjur waaye di sant tamit ñi nga xam ne Cheikh Laaj Abdul Aziz ñooñu la ñu booleel bàyyi leen fii muy suñu kilifa yi kilifa diine yi di si jiital euh, Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla yàggal taxawaayam moom ak mbooleem kilifa yi eh, tabaarakallahu eh, diine yi ci réew mi waaye di nuyu ak di itam eh, ñi ñu bokkal plateau bi di si jiital suñu turando suñu sëriñ sëriñ Moulay Sy Habib di ko ñaanal moom tamit wër ak gudd fan tabaarakallahu di am mbégte tamit tabaarakallahu di bokk plateau kii suñu doomi e di Cheikh Ahmed Tidiane si Al Amin eh, nga xam ne yàgg nañu gis taxawaayam eh, tabarakallahu ci e société bi de façon général waaye itam ci e maanaam dë dëkkin gu rafet ci diggante confrères yi gis nañ taxawaay bi ci taxaw macha allah ñu ko si ñaanal yàlla moom tamit yàlla gën a yàggal taxawaayam mu mel ne rek tabarakallahu thème bi comme ni ko waxee le leadership et sens de responsabilité dans une société en crise le legs de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh radiallahu anhu mu mel ni ko defee dispatching Cheikh Ahmed tijan Sy Al Amin وحسي إيه، تبارك الله نال إيه، مام عبدو رضي الله عنه نكون إيه، نكون كلفة جينا خمنة تبارك الله دفع أميون كاليتا يو خمنة ني كيب كوي نجيت ولا كلفة رك وارنغا كو منا أمي بمنا بطخ نغا وارا منا تخاو س س س س س اسكان ولا سوسيتي بيغا بوك ما شاء الله واي ايتام أه كيدي حاج عبد العزيز جو مملني موم تاميت تخاو دفنا كي بن تخاو سيتلو كي ليغا خامتيني بي موم موي بيوغرافي شيخ الحاج عبد العزيز مو واختانال نيوسي لو ام سولو tabarakallahu euh, kañ la juddu ñan ñooy ay woy juróom yaakaar naa ne tabarakallahu loolu euh, lu leer la ci ñëpp waaye tamit lu jara euh, fàttaliku la macha allah lu jara fàttaliku la wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin kon mu mel ni dina fàttaliku loolu rek dinañ am lum ñu jëriñ macha allah mu wax aussi Euh, intemporalité bi nga euh, la personnalité de Cheikh Abdul Aziz anhu constitué il a transcendé euh, les générations donc introduire accès point euh, Madame, euh, leadership et sens de responsabilité générationnelle euh, comment l'héritage de Cheikh El Aziz peut faire sortir cette jeunesse d'aujourd'hui de la crise profonde à laquelle elle est confrontée Moumeni. bëgg nañ waxtaan ñu may ñu tuuti rek xam naa bala ñoo aborder thème boobu incha allahu ñu fàttaliku ne euh, comme ni ko modérateur wala euh, Hadj Abdoul Aziz Diop euh, waxee le 14 septembre le Cheikh El Hadj Abdoul Aziz génnoon àdduna 1997 ñu mu mu mu mu nekk maanaam. Euh, benn euh, date boo xam ne date bu symbolique la euh, tabarakallahu date bu significative ba tax na saa yu jotee rek xel yëpp day nekk ci moom mu waral lii di association Turandoo Maam Dabakh di organiser ay journée yoo xam ne tabarakallahu su su bés bi jotee dañ koy fàttaliku ci ay don ci ay jàng ay alquran ay kaamil wàcceel ko ko tabarakallahu Euh, ñaanal ko ak ak euh, ñaanal ay woy juram ak ay sëriñam ak ñaan ci seeni barke yàlla sotti mbaaxam ak yërmandem ci àdduna bi tabarakallahu ñu ciy euh, jaajëfal association turandoo Maam Dabakh yëpp ci seen liggéey bu constant ak bu rafet bu ñu taxawee tabarakallahu di si jiital président Abdoul Aziz Kane bi nga xam ne il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées là wax dëgg yàlla ñu ko ci ñaanal yàlla fu ñu mënti toll macha allah moom ak Abdoul Aziz Ndione ak ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi ci association bi waaye di ñaanal itam ñi nga xam ne way dawlo yi nekkoon ci association bi ñu mel ni ñoom Abdoul Aziz Dieye yàlla teeru leen ci yërmandem ci barke Cheikh Laaji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu mu mel ni nag bésu fàttaliku bii ñuy fàttaliku Cheikh El Hadj Aziz te mu mel ni Abdoul Aziz Diop wax na ko du du bidaa maanaam na nañuy moytu di ci demee ci côté bidaa mu mel ni rek fàttaliku bi suñu fàttaliko Cheikh El Hadj Aziz rek du Cheikh El Hadj Aziz ci boppam moo tax nit ñi di fàttaliku déedéet. يالله لني فتلكو اتخافر لا بيرسون de شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه ندختي اهل الله نكيو في لودول نتني ني دي فتلكو سين بوروم لولو لالين لالين في الله واتي تبارك الله يلا بوم وخين ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كن responsabilité boobu nga xam ne yàlla jëloon na ko teg ko ci doomu Adama wàccee ko fi ne inni jaa'ilun fil ardi xalifata xalifatan damay wàccee ci kaw suuf si koo xam ne dina ma fa wuutu kon képp ku fi ku fi wuutu yàlla doo wax lu dul waxu yàlla doo jëf lu dul loo xam ne nii pour nit ñi mën a dellu ci seen borom la te Cheikh El Hadj Abdoul Aziz kenn la woon si ñooñu kon suñu koy fàttaliku pour defaraat suñu diggante ak suñu borom la ndax moom digganteem ak boromam moom defar na ko kat ba dem tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ñoom Cheikh Alhaji Abdul Aziz alquran nee na ay ay ay ay ay tabarakallahu njiit lañ yoo xam ne maanaam lépp lu ñu rek ñoom jàll na laha ma kasabat génération yooyu lépp lu ñu jëfoon rek seen bopp lañ ko jëfal wala kum maa kasabtum yéen tamit yéen génération tey bi ñeel na leen li ngeen jëfal seen bopp wala tous aluna ama kanu yamalun yàlla bu leen di interroger du ci ñoom la ñu doon liggéey ñoom Cheikh Alhaji abdul Aziz waaye ñun génération tey loolu la ñu yàlla di interroger alors kon ñun en tant que jeunesse d'aujourd'hui nga xam la plupart euh, d'entre nous euh, sommes nés l'après Cheikh Alhaji Abdoul Aziz wala à peu près bobu ay ay ay ay tout tànk lañ wax deug yàlla kon mën na wax ne ñun ñi di addu tey amana Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu anhu bu muy génn aduna xamuñu lu bari wala bañu dund ak mom xamuñu lu bari ci mom waye ci ginnawam tabarakallah euh au fil du temps puisqu'il transcende euh, euh, les barrières du temps Euh, et de l'espace macha allah qui la ñu di jangat ak di gëstu ci mom ba mu ben euh référence et et modèle pour ñun tabarakallahu kon nak société bobu nga xamné tay tey euh, euh, comme niko Hay Abdul Aziz wala modérateur Eliman Kan waxee tabarakallahu mu melni nous sommes composés nous sommes une société

déterminé yow ban genre de ngay don ëllëg dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu seras lol ñun ñëpp xam nañ ko euh, kon euh jeunesse bobu tay nga xam ne euh, macha Allah référence manké wuñu ci ku melni Cheikh El Hadj Aziz Dabakh am lu bëri lu ñu wara mëna mën ci mom ba mëna défar suñu suñu société tabarakallahu bi nga xam ne mu ngi ci suñuy loxo euh, li ci li ci jiitu d'abord mooy euh, mooy lan mooy sakku xam-xam ndaw euh, faratam nekkut leneen lu dul sakku xam-xam ut xam-xam te ku mel ni Cheikh Alhaji Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu tabarakallahu ku ko ku ku gis succès bi mu am ci ci ci ci ci maanaam wàllu dundam eh, ci bamu mu ganee àdduna ba ni mu fiy génne eh, nga xam ne succès boobu mooy lan mooy mu dem à peu près vingt quatre ans vingt cinq ans si tey nit ñi di ko fàttaliku muy gën sax ci xolu nit ñi lan moo waral loolu lépp mooy dafa nekk ndaw tabaarakallahu nekk ndawam googu eh, terewu ko doon responsable terewu ko xam lan la war a def mu ay wayjuram tabaarakallahu jël ko dugal ko ci ay daara alquran pour mu sàkku xam-xam ah, mu mel ni eh, daara yooyu Cheikh Alaaji Abdul Aziz Dabakh radiallahu anhu eh, jaar na ci waaye ba ni muy génnee àdduna du deñ di leen soutenir ak di ñaax nit ñi ak wayjur yi ak société bi nañuy gën di aar daara yooyu nañuy gën di ko bàyyi xel nañuy yóbbu suñuy njaboot ci daara yooyu ñu sakku xam-xam bu ko defee ëllëg ñu mën a am ñu mel ni Cheikh El Hadj Aziz ñoom wala ñu mën a ñu taxaw tax tànk yooyu ak di leen roy ci ci ci ci taxawaay boobu tabarakallahu kon euh, sakku xam-xam googu tey dama ci ñaax euh, macha allahu samay mbokk jeunesse bi nga xamante ne bi maanaam lii nga xam ne xam-xam rek moo mën a guider suñuy pas mun nekk torche bi ñuy niital ba ñu mën a defar suñu adduna bi waaye mën defar suñu diggante ak suñu borom ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xamal nit daf ñu jàngal ci ab xadis ne annaasu kulluhum halka illa al alimun wala alimun kulluhum halka illa al amilun wala aamilun kulluhum halka illa alxaalisuun walxaalisuuna ala xatar mu xamal ñu ne doomu aadama yëpp tabarakallahu dañoo perte ñu ne ko ha mu ne waaw ñëpp perte waaye am na ñu des ñu ne ko mooy ñen mu ne ñi ñi nga xam ne dañoo dem doon ji sàkku xam-xam ba doon ay boroomi xam-xam mu ne yemul ci loolu sax même boroom xam-xam yooyu ñoom ñëpp dañoo alku bamu mu dañoo perte ba mu des ñi nga xam ne ca ñoom dañuy jëfe la ñu jàng waaye ñooña di jëfe sax day tabarakallahu ñoom ñëpp dañoo perte ba mu des ñay selal seen jëf yooya waaye ñay sellal sax day bu ñu naagu mukk mukk mukk ndaxte ñu ngi mel ni ñu toog ci volcan te volcan moom ku nekk xam na ne mën na euh, def éruption à tout moment tabarakallah te bu defee éruption yaakaar naa ne dégâts yi dina dina dina doy waar trop kon nag te xadis bi mu mel ni Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh ci boppam mi ñuy tudd tey mi ñuy fàttaliku tey daf ko yàggoon na daana faral di bëri lu mu koy wax macha allahu di fàttali nit ñi ne toujours dañuy war di sàkku ji xam-xam waaye dañuy war di jëfe waaye dañuy war di ko sellal waaye bu ñu naagu mukk mooy humilité bi tabarakallahu loolu yëpp mu ngi woon ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu te mbaax nag euh, mag dina ko for waaye puso la mag dina ko for waaye xale dina ko for te nag ci doon xale ci ngay ci ci âge jeunesse boobu nga toll ci ci ngay mën a euh, tabarakallahu euh, lu bëri ci nga koy mën a defee rawatina sàkku xam-xam ci sa ci sa ci sa dund bis bu la boobu Euh, rëccee ci sa ci sa ci sa dund bu moytuwul dina jafe nga dabuwaat ko ndaxte après responsabilités yi ñëw te responsabilité yooyu yëpp nag socle bi mooy xam-xam ndaxte xam-xam bis boo ko sàkkoo rek tabarakallahu di dinga jëriñ sa bopp waaye di nga jëriñ sa société kon may ñaax euh, ndaw ñi ci ci ci ci sàkku xam-xam Eh, ngir ñu mën a jëriñ société waaye mën a jëriñ seen bopp waaye beneen point bu am solo bi nga xamante ne bi eh, eh, dama ko ci dama ko maanaam dañ koy laalaale ci élément bi wala ci point bi ñuy développé mooy ndaw nekk ndaw terewul nga am sens de responsabilité comme ni ko Cheikh El Hadj Aziz Dabakh amé woon Euh, ndaw war na def prise de conscience ci dundam euh, ci am na fu mu war a toll war na xam lan moo ko war ak li nga xam ne war na xam ay àqam ak ay yelleefam ah tabaarakallahu ay àqam nag mooy gannaaw ba mu juddoo ay juram teg ko jaarale ko fañ ko war a jaarale wan koy yoon wi ah inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura waaw sa waajur yooyu nga xam ne tabaarakallahu eh, eh, dañ la teg ci yoon wu baax boo demee ba mën ba nga mën a ràññee nag li nga xam ne wii lii mooy yoon wu baax bi ak lii mooy yoon bi nga xam ne mooy safaan bi kon war nga xam lan mooy say say priorité te say priorité mooy say responsabilité lan mooy responsabilité ndaw ci société ci bu bu bu maanaam euh, ci bu ñu ci dundu ak njàngale Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu loolu maanaam dafay nekk ndaw boo xam ne ndaw bu ndaw ndaw ndaw bu manam bu mën a bu bu topp ay wayjuram ak ay kilifam manam soumission ndaw bu bu bu utee xam-xam waaye mu am kilifa rek dafay dem kanam kon ñaari yi nga xam ñaar yi mooy ñaari point yu am am solo yoo xam ne jàpp nañ ne su si ndaw yi bàyyee seen xel def prise de conscience ci ne dañoo chaque moment boo xam ne ñu ngi koy tabarakallahu euh, dépenser wala spend ci seen ci seen adduna euh, xam-xam lañ si war a jiital waaye itam am foo xam ne ni dañ fa sukkandiku muy kilifteef te kilifteef ci wéy jur yi la commencé ñu bàyyiwaat xel way jur yi bu baax a baax a baax a baax te yaakaar naa ne kii di cheikh alhaji abdul aziz da baax radiallahu anhu ak njabootam ak njabootu cheikh cheikh sede alhaji malik de façon générale li ñu ñu jàngal ak li ñu ñu xamal mooy ndaw sa kilifa sa sëriñ sa référence sa lépp mooy say way jur d' abord d' abord mbay ci sa wewu tànk gis nañ sëriñ babacar si Eh, eh, Serigne Babacar Sy Abdou yal na yàlla yàggal ko fi celui que l'on surnomme l'idole de toute une génération te loolu buñ ko waxee rek jeunesse yi ñoo tax ñuy wax saa yi wax gis nañ buy wax nit ñi bu ñuy ziyaara ji Tivaouane di fa indi lii di addiya bu ñu war a joxe ci jumaa yi wala lu mënti doon sa wayjur bi nga xam ne moom moo bis boo ko defee nga bàyyi sa wayjur boo xam ne soxla na lu mu lek wala lu mu sol wala fu mu teud nga bàyyi loolu nga dem nga def ko fele amo fa yalla amo fa yonent kon loolu nga wara def fofu def ko ci sa way jur li jangal nañ ñuko tabarakallah nga bàyyi ku xif ci sa wewu tank mu ngi sonnu nga jël loolu nga dem diko joxe ci ki nga xamantene bi moy sa serigne mo xam Cheikh Alhaji abdul Aziz la mo xam ku mu ti doon ci say sëriñ yooyu tiwaawoon ñoom la nanga nga bàyyi donc loolu mooy defar société bi ñoom dañoo won maanaam yàlla nan la ñuy amee yàlla à travers la société mais du seen bopp la ñuy won ba ñun tamit ñu xam ñu ram ràññee waaye nag ñu nekk suñuy kilifa nekk suñuy référence nekk suñuy guide spirituel ba tax na ci lépp lu ñu leen topp rek yàlla lañ ciy am tabarakallahu kon euh, euh, ñu ñu ñu ñu góorgóorlu ñu ndaw ñi ci lii di sàkku xam-xam waye itam ci suñuy wayju ci di di di di baax ak di rafetal jëm ci ñoom ndax nak wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al الكبر ahaduhuma aw kilahuma fala taqul لهما uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لي يلا nee na gannaaw ba mu décrété ñu jaamu ko amul leneen lu ñu war a jaamu lu dul moom tabarakallahu la ma ca teg mooy wa bil walidayni ihsanan say ñaari wayjur na nga rafetal jëm si ñoom e, e, bu ñu demee ba jëm mag bu ñu wax mukk ba nga gëdd leen waaye tamit bu leen bu leen manqué respect na nga leen di ormal na nga leen wàcceel maanaam lii di di di di laafu yërmande nga yërëm leen bis boo defee lii rek yàlla tabarakallahu dana la boole ak nit ñu baax ñi nga xam ñu mel ni ñoom Cheikh Alhaji Abdul Aziz nga xam ne ginnaaw bu ñu jógee fii sax dinañ continuer di la niital ak di la leeral ba sa adduna defaru sa tabarakallahu sa alaxira nga am ci yàlla tamit sa alaxira mën a defaru waaye ñu jeexalee tuuti tamit puisqu'on parle de, de, de, euh, responsabilité générationnelle, euh, euh, surtout en jeunesse bien nga nous ñun ci qui ci tabarakallah de nous nous di waxtan itam bu Cheikh Cheikh Aziz Cheikh Aziz anhu bu bu namu doon waxee ci li nga xam moy fléau yi gangrène yi doon gangrène société bi tel que euh, euh, euh, la la prostitution tel que en tout cas lepp lo xam crise la rek muy crise sociétale bo xam ñu ko doon dajé ñu ngi ko doon jànkuwante te mu ci doon wax kon dina doon wax ci li muy li nga xam mom moy tabaraka tabaarakallahu internet ak réseaux sociaux yi nga xamante ne wax deug yalla Euh, euh, ndaw ñi ñoo dafa ñëw pour ndaw ñi en tant que tel mais est-ce que léppam ak nu ne lañ si war a demee euh, maanaam nañu si bayi xel ne mbaax rek lañu ci war a mën a tey à travers internet ci la ñu war a mën ci la ñu permettre moo ñu tey yi ñun ñu jàkkaarloo nekk fii ba États-Unis jàkkaarloo ñii nekk Sénégal ak ñeneen ñu nekk feneen ci gox-goxaan yi tabarakallahu ñu mën a jàkkaarloo mën a waxtaan ci dund ak njëriñu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu anhu kon ndegete lii di nga xam ne mooy mooy mooy euh, internet ak technologie yi nga xam ne moom lañu euh, moom lañu fekk si suñu jamono amul du du am njëriñ du am jeexintal ci ñun tant que utiliser wuñ ko à bon escient comme ni ñu koy defee nii tabarakallahu jéem ko suuxat tamit ci suñuy njaboot ak lawal ko ci société bi yëpp macha allahu xam naa ne guddal nañ lool li ñuy wax naan li duuf si nag wi xejul ci cin bi te ku mel ni Cheikh Alhaji Abdul Aziz Dabakh radiallahu anhu dëgg la wax ci moom ne baax na loolu maanaam loolu tënk na lépp yem ca di waxtaan ci Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ne ku bax la won yem na manam doyna na waxtaan waaye itam waxtaan ci Cheikh Alhaji Abdoul Aziz la tuaddu wala tuhsa manam amul amul amul hadd amul amul frontière nit ki mën na ci wax tey ba suba jëriñu ci jëriñ askanam jëriñ société am lii la ñu amoon pour waxtaan Hajam iliman ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan tabarakallahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh